waaye ci lislaam est-ce que du lislaam islam xamul anniversaire yeneen bi alayhi salaatu wasalaam da doon lënd ñu ne ko tax mu ne ci laa judd ci lënd boobu yonent bi ci la rañaan dem kaw asamaan ci lënd boobu la gàttaay ci lënd boobu la faatu sallallahu alayhi wa kon lënd fa mel ne dañ koy jagleel yonent bi alayhi salaatu wasalaam xew-xew événement yëpp yu yonent bi yu gën a rëy lëndi la musul feete anniversaire Aboubacar musul ko feete Omar musu def Ousmane musu def kon anniversaire yii ñuy def yëfu nasaraan la du yëfu lislaam amul wàccuwaay ci islam parce que du yëfu islam. ak tamit yenn jaamu yàlla yi jagleel ci benn bis ne. jaamu yàlla yi jagleel naan bisu sàngam bi nañ ci def lii nañ ci def li bidaa ilzaamu maa laa yulzam bidaa